la diva est de retour donc du jug ci euh, di ñu wan ay innovation du jug ci di ñu wan moom mooy Coumba Gawlo Seck yaakaar naa ni li nga xam ni moom la way papam ah way ko ci musique douce way ko ci acoustique mu dal lool dem ba ca àll ba def fa clip bu extraordinaire euh, Samira Coulibaly nee na bu Coumba Gawlo di way moom yaramam day daw mais yaakaar naa ni Coumba Gawlo bi muy way ñun ñëpp kenn ku suñu yaram euh, toogul yaram yi dañ ko doon dàq ji sax wala ñu wut yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla dimbali defal ñu jàmm en tout cas lii c'est Kals c'est un excellent titre salaamaaleykum déjà à tous ces téléspectateurs yi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel comme tous les matins d'ailleurs ci Weekend Stars bon c'est une grande diva euh, qui marque également son retour ak ginnaaw absence bi mu defoon euh, faut rappeler juste que ce titre fait partie de son dernier album Terroir donc mais ñu bëri découvrir luñ ko woon mm-hmm. mais li ci exceptionnel mooy l'image bi nga xam ne gis nañ ko mu nekk en forme et joxe énergie bu mat ci clip bi euh, ak ñi ko réaliser franchement Euh, du man rek àddina bi yëpp ñoo ko wax bi ñu déggee ni Kumba dafay génnee dara dañ ci kontaan lool parce que amoon nañ quelques soucis ci moom mais bon finalement alhamdulilah la ñuy wax voilà. ah dañuy sant yàlla rek man ben j'ai vu le clip rek ma partagé ko parce que c'était extraordinaire après Kumba Gawlo euh, mu feebaroon après yàlla dimbali ko mu ñëwaat Kumba Gawlo ak ni mu toll ci Afrique ak ni mu toll ci àdduna bi indi ñu clip bu mel ni foog naa ni lii àdduna yëpp war nañ ci bàyyi xel quand même Madou effectivement Abba maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak ñi ma bokkal plateau bi également donc je pense que moom euh, l'histoire elle va se répéter ki nga xamante ne moom moo di Coumba Gawlo Seck c'est une dame que l'on ne ci wàllu li nga xamante ne moom moo di sphère musique waaye dafa gën a dalal suñu xel ci retouram bi nga xamante ne indi na ko avec ses belles images accompagnées de sa très belle bi ñu xamoon macha allah euh, donc je pense que lii moom li ñu naan l'histoire retiendra mais di ko ñaanal rek wér na ci gën a topp puis euh, c'est un plaisir de la regarder comme ni ñu ko tàmm seetaane d'habitude c'est une dame qui ne se laisse pas faire macha allah euh, malgré sa maladie et tout elle revenue mu def comeback et li ma gën a neex ci image bi mooy tu sais Abba l'image ça parle mm même soo déggul le fait de voir euh, Coumba Gawlo dans la nature mu yor piano ba pare piano bu noir sol lu blanc ça veut ak tekk gi titre bi nga xamante ne euh, mi ngi def hommage euh, à son père macha allah man su koy déglu la chair de poule comme je t'ai dit tout à l'heure yéegee di wàcc donc ça sa donne des frissons yal na ko yàlla lafal cat notre diva à la voix d'or yàlla macha allah mës ngeen a gis Kumba Gawlo buy jooy du bu yoru musuwaar yow du jooy Kumba ñaari musuwaar lay mën a yor di jooy di ko di di di di dafa tubaabee Kumba léppam dafa tubaabee tey euh, son bi nga xam ne moom la clip en calce mu ngi nekkoon ci euh, albumam bi mu jéegéen tey naka la euh, son di def ginnaaw bu doxee tuuti nga soog ko clip da koy dundalaat da koy dundal parce que euh, tu sais bu nekk dafay am ay tube yu ciy nekk ay titres yoo xam ne mooy titre phare yi moo tax artistes yi di génnee en single puis l'album am na nag ay son yoo xam ne d'habitude koy découvrir dans l'album dañuy bàyyi le public mu apprécier tant que ko am na nag ay son yoo xam ne ñoom ñooy defal seen bopp succès donc bii daf ci bokk parce que dafa marqué retour également voilà tey euh, artiste bi nga xam day am single rek euh, daal est-ce que single bi du gaaw a dee wala danga war a xaar ba ar ba nga xam ni ñoom ñooy public bi ne la kilibal lii. wala da ngay gis ku génne single boole ko. kilib boole ko kilib bon souvent xam nga ñaari stratégie la Euh, bu njëkk ba dañ doon njëkk a gis d'habitude Youssou Ndour génnee benn son ñu dem quelque temps comme ni nga ko waxee ñu lay réclamer la vidéo nga génnee ko loolu peut mën na yokk durée de vie wu bi parce que di nga consommer puis la vidéo après léegi nag bon ak tendance bu bees bi y plus de visibilité bu fekkee da def clip directement et loolu la gis peut de cette génération di ko def léegi en tout cas Gawlo ñu ngi koy ñaanal euh, yàlla may ñun Afrique yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mm. donc Kalz euh, ñu ne nga naan lu tàng euh, waa région ñu ne nga naan lu tàng <laughs> yeewoogul leçon bi si je ne me trompe la vidéo elle est sortie le 7 mm-hmm. le 7 bi ñuy nekkoon mooy le 7 mars mu nekkoon di fàttaliku jigéenu talaatay ndeer donc je me dis aussi c'est un message boo xamante ne lancé na ko ci mm-hmm. par rapport ak fi mu jóge woon mm-hmm. ak fi mu si montre toujours la bravoure bi kii waxoon loolu yow ay yëfi femme dalaa yittee tànkal seen weer ngeen nekk de ah, nañ leen may jàmm rek seen weer ngeen nekk ah, wax ju neex ah. di leen jox ay teraanga di leen defal ay ay ay affaire yu ay surprise yu neex lu neex daal seen weer ngeen nekk. waaw waaw waaw waaw ma bëgg femme rek mu nëbbu ko man ma ah, waaw waaw man ma ko feeñee rek. ma ndax da nga ah, ah, rek de. da ngay xool madame Sakho orange bi mu génn tey mi ngi mel ni Clémentine. maa ngi ñëw ci moom kenn xamul lii la kenn waaw waaw waaw. j'en ci madame Sakho maa ngi ñëw ci moom parce que tooñ weesuwul ñu dénk la ay responsabilité plateau bi émission bi yaay responsable bi mhm. yaakaar naa ni kon yaay suñu njiit fii ah, njiit nag doo jiite ba pare xaw ma lan ñi doo leen jiite ba pare di leen faqastalu daf ñuy heure bu xëyee mu ngi ñuy xool parce que tamit émission boo xam dañuy concentré wu ah. ouverture émission bi dañ ciy def lu sérieux wala dara nga yàq ko trois fois mm. <laughs> dañ ciy ñëw ah, saaxo <laughs> maa ngi ñëw <laughs> eh day boo duggee ci teer bi ba teer bi génn euh, Colobane euh, dem Pikine dem Thiaroye ba dugg yëmbal loo yëg. dans la gare de ah, Yëmbal ma def ko ci kàllaamay olof yegsi nga ci gaaru Yëmbal xoolal ndax fàtte woo say bagage fàtte woo say bagage mbaa. <laughs> fàttewu ma dara foofu moom koo fàtt dara yaa ko tey ndax moom wax na la ko nee na la ba xam xoolee ba xam looy fàtte mm. Mm. boo wàccee nag ba gaar bi dem nga ne am naa lu ma fàtte yaa ko teg sa mais am na lu ma metti trop ci teer bi waaw te loolu mënu ma ko wax ci mbedd mi dama koy toog fii wax ko ñëpp mm. mooy teer boo demee Amérique astafurlah France wala nga dem ci Europe ci en dañ naan la booy waaj a wàcc dañ naan la nga moytu yaa lay pickpocket <laughs> teer bi déggaguma kii wax naan la wax nga dëgg moytu moytu yaa lay pickpocket <laughs> te yaa <laughs> teer di jaar Colobane di jaar Pikine di jaar Yëmbal yaa lay pik ah wallaay dëgg la ayte <laughs> booy maa ngi lay ziar bu baax a baax Aba di la nuyu di jaajëfal ñi nga xamante si ñu ngi seetaan ci télé bu mag bii di TFM télé Futurs Médias di leen kontaane bu baax a baax Kalsi maa ngi lay nuyu Tata ma maa ngi lay ziar Samira mu baax mi comme kuy bali maa ngi lay doomu gànjool bi kenn du yow yàlla sa jàmm yaa gànjool la demoon waaw demoon na de <laughs> gànjool sa kër maam demoon na sa kër maam waaw yow mi demoon na de mais te Doro gànjool sa kër maam <laughs> Doro ngay yow loo bokk ak Doro <laughs> Doro Gaye mi ñu dénk Clara bàyyi Latifa ak da baax mu ndaw Doro moom mi kaw la bëgg réew mi bëgg ko ngeen yow gaañoo sa kër ma. demoon na fa de. yaa ngi may nëbb sa bopp de. demoon na fa émission bi jeexee naa la eh, yow dafa mel danga ngaa wax ñi sàcc yéene kaay. waaw euh, Aba boo gisee euh, ñi nga xamante ni si moo di tafu yéene kaay ku ci euh, ñu ku ne xam na ni ñu baree bare dañuy yaakaar ni yëmbal ba tey daa ay tafu maanaam ay agresseur ak yooyu. amatu mhm. fa amatu fa ah fa ah, ah, laa dëkk. Mhm. fa dëkk gisatuma ko fa. Ah, man kii yéen a ngi may gis yéen ñëpp. Mm. man Aba. <laughs> man ma fa dëkk gisatuma fa tafu maan gisatuma fa agresseur. waaw ah, dama leen di wax pour. bu ngeen xam naa tax may parce que damay bañ 2 heures du matin may dox. <laughs> naa li may wax xam naa li may wax euh, ndax euh, waa ji dafa dugg ci euh, car bi. toog ak paa bi bi muy toogee ak paa bi euh, gis téléphone paa bi ay iPhone 14 euh, yooyu la paa bi yoroon yaakaar naa. boobu génn ko wàññi ko 13 ah, ah iPhone 13. kon journal bee juum ci li mu bind maa ngi juum maa ngi jégalu pour man génn na sax yaa ngi dégg bi waa ji dafa toog nii ak paa bi di waxtaan mais moom li muy waxtaan ak paa bi yëpp. téléphone bi la bëggoon a sàcc mais mi ngi naan paa bi daf ko yóbbu ci coupe d' afrique bi mooy suñu final bi ci la dugal paa bi pour waxtaan ak moom pour mën a jël téléphone bi mais ngi naan ko bi Sadio di dugg bi ñuy def suñu kii hymne national paa bi naan ko mm-hmm. waaw bi muy wax loolu mi ngi génnee mais wax na di waxtaan ak waa ji di waxtaan ak paa bi di waxtaan ak paa bi bañ centré paa bi xanaa bi muy wax ak paa bi ci affaire hymne national paa bi daa jël loxo <laughs> yow paa bi di waxtaan ak moom muy waxtaan moom ba deuxième mi-temps. Uh-huh. kon ça veut dire que na xaaj deux xaaj a des. waaw moom premier mi-temps bi jàll na. ah daa génne iPhone 8 bi. waaw kon mu de set mu des 7 ah, la. Ah. wala wala kon mu des 5. <laughs> ay ca ay ca eggale eggale. yow deuxième bi dem nañ ba série mu naan ko Sadio Mané dafa jël bal bi paa bi moom bi mu yëkkatee ci la ko comprendre moom bi ñu ne ci la paa comprendre ni kii sàcc la. Ah, mais paa bi daf koo bàyyi ci biir. da koo bàyyi na ko sàcc bi def na ko. Euh, Sadio Mané dafa profondeur bal bi Gana Gueye paa bi si jëm bopp moo rocc téléphone bi téye ko ne ko dóoral bal bi la ngay wax ba góol gi tàmbi ko nag police nga jëm yow. Ah, allahu rabbi waaw. Ah, xanaa euh, euh, kenn mënatu leen. billaahi billaahi. gis naa paa bu yor 500 dugg ci carapide bi nii toog nii 500 bi di lang booy pickpocket bi gis 500 paa bi laal ko. laay wàcc dem ak moom ndeke moom poosu pickpocket bi amoon na 10 000. laay eh. moom bi muy rocci paa bi ci ko paa bi rocci. daw dem paa bi ko pis booyee mu ne ko man dama laa wecci. <laughs> <laughs> ayca yeggal fi nga nekk baax na. aja day dem tamit ci beneen journal mu di uh, kaso yërekaay moom tamit dafay def lu doy waar. aba uh, moom da ndax dafa bind ci lu doy waar muy kaso yi la fa xew. ndax da ci am benn waay yoo xam ne dafa uh, dafa sàccoon xaalisu jàmbur ñu tëj ko. ñu ko tëjee tëj ko ay 13 ans yooyu mais dafa am rakkam boo xam ne dafa nekk ci kër gi mais yéenee maam yéene maam yéene yéene na koo génnee daal. Mhm. mais rakk ji ndaysaan amul liggéey ak yooyu waaye dafa dem ba foofu ne ko dama laa bëggoon a génnee fii mu ne ko yow amoo liggéey amoo dara yow 3000 francs ngay kii par jour affaire yi mun na ko mhm, mhm. yàlla baax na maa ngi 3000 euh, francs yi may am chaque weer maa ngi koy jënd kasetu prison break di seetaan pour mën laa génne fii incha allah. dëgg la ah, koo bëgg évader la da bëgg évader waaw yàlla baax na yeggali yeggali <laughs> yeggali. <laughs> yegg waaw yeggali yeggali ndeysaan ñu dem tamit ci beneen yéenekaay mu di takk yéenekaay moom tamit Aba nañu bàyyi góor ñi nga xamante ni si dañuy am jabar ba pare di doxaan. Mhm. waaw ah, waaw dama ci insister tuuti ndax waa ji. ah déedéet bul insister de da ngay romb rek. Eh. <laughs> non non non non xoolal ah, plateau bi yow yaay wax ndax da ngay insister doo insister. waaw yow yaa ko da nga wax ci ñi am jabar ba noppi di doxaan. loo ci insister bindoo bindu ma ko. journal bi day insister. calze mii ngay waxal di <laughs> kii sama ah jàkkaarloo calze naan ko ñi am jabar ba noppi doxaan. yéen da ngeen a réew dañ leen di bàyyi ci plateau bi ngeen wax lu leen neex jabar jee ngi seetaan nga jàkkaarloo kii naan ko ñi am jabar ba noppi di doxal ma eh bàyyi loolu bàyyi loolu. ah, ah? muy ndax waa ji waa ji Abba dafa takk jabar. bi mu takkee jabar daan na jabar ji demal sa kër yaay dans une semaine après nga ñëwaat pour nga mën a noppalu ndax ndekete moom dafa am ku mu bëgg a woo ci kër gi pour euh, mu toggal koo defal ab beneen beneen gelam daal. Mm. ndekete bi mu bi jabar ji demee. trois jours la fa def yaayam ne ko demaatal parce que sa jëkkër moom kese mënu faa ne bi mu demee fekk fa fekk fa gel bi mais dafa dem fekk gel bi toog nii ci kaw lal bi waa ji toog nii ci kaw lal bi mu ñëw mu ne ko papa chéri mu ne ko ça va yaa ngi ci jàmm ça va yow ko waa sa moo wax ma ñëw parce que doo am ku la toggal ak yooyu mais dafa def nii yem ci gel bi bi mu ne nii yem ci gel bi mu ne ko waaye kii kan la mu ne ko pourtant kii de sa yaay moo la ko indil bi ngay bi ci bagage yi <laughs> Ah. lépp yéene kaay <laughs> moom tamit dafa def lu doy waar aba mm-hmm. lu doy waar loo xamante ni si euh, bokk na ci ñi nga xamante ni si moo di moo di moo di fële ca ca ca ca Kédougou mm-hmm. ca Kédougou ku ne xam na ne lu ne am na fa mm-hmm. Kédougou ndax waa ji euh, dafa dugg ci baar ci baar yi la dugg pour def li nga xamante si moo di ay mandek yooyu ku ne xam na ni baar day am yooyu am ñoo xamante si dañuy tërëf mhm. mais baar bi pour mandi pour mandi la duggee dafa mandi ba pare paa bi moom ndeysaan euh, da doon xool lu muy saf ak yooyu bu mu daan naan rek daal di mandi bi mu génnee booy ñoodu fubal mais góol bi moo tulli rek bal bi dal fii paa bi oh. téer paa bi daanu mais paa bi booy ñëw yëkkati ko papa ñi ngi jégalu mais paa dañ koo taxawal paa bi dañ koy juutal paa bi ne dañ koo juutal. ah nañ ko waaw ñu juutalaat ko paa bi ne waa kay nii la nii la kay yéen a ngi doog a ñëw. <laughs> nii la en tout cas euh, sant nañ la gërëm nañ la lii la ñu bëgg ci Weekend Stars. buñ koy commencé nga ñëw éveillé ñu. Mm-hmm. reetaan loo ñu ba suñu xol yi féex. Eh. ñu doog a dugg ci li nga xam ne mooy programme bi euh, sant nañ la gërëm nañ la fi nga génn tey. waaw euh, kan moo ko fa génneeti. ah waaw mën ta ñàkk ah ah, ah. ah. kii tey da la. ah da baax ah. la. yii daal di xool <laughs> <laughs> da ngay am sponsor officiel. dëgg la kenn moom da kenn du moom da baax. Eh, ah ma nga ma nga fële ca ca yëmbal la dëkk moom it. Mm. Ah, yëmbal la dëkk waaw yëmbal la dëkk. da ngaa la dëkk. tey moom da ah, bi. seet ko seet ko. ndeysaan mën naa jël sa temps de. ndeysaan waa kay numéro mi ngi nii 76. 672. Mhm. 99 64. fu mu nekk ci yëmbal. ma nga yëmbal euh, ca bala ngaa yegg tali mhm. ma nga local. waaw maa ngi bu baax yë waa yëmbal. Mhm. di leen nuyu waat di leen wax ni nuyu naa ah, ah, ah, de. parce <laughs> que yoon bañ defaroon yoon bañ defaroon ci yoon bi teggi na la. waaw ci corniche bu le. waaw bu jëm ca géej ga. bi ñu yeggee ba Cambérène dafa amoon ay travaux. pare na tàllal dem sama kër yaay cinq minutes cinq minutes ma ñibbis yëmbal danoo xew am nañ lim na léegi léegi am nañ ay ay gisee boo leen yëmbal gisee fay gisee lépp am nañ ko léegi lépp lañ am sant na yàlla bu baax lépp am ak yàlla mu koy leen dong lañ des gisee yow kii dadi dadi dadi booy bambara yàlla na yàlla yërëm te xare ko àjjana li muy bàkku yëpp yëpp mosoo dégg mu ne kii ma daan moom ñim daan rek lay wax dadi bul wax li ñu manqué del wax li ñu am dadi li ñu manqué ah. ñu manqué hmm. ñu bari amuñu ko ko ñu bari ah. waaw lan la célibataire yi ne yëmbal waaw dañoo bari <laughs> loolu loolu loolu loolu mairie bi xam nga ñan ñoo ci mën dara hmm. stylistes yi nga xam ne ñoo lay jàpp waaw defar la waaw defaral la ay yére waaw nga sañse sa lépp baax waaw stylistes yooyu bu ñu la defaree bu ñu la jàppee ba bàyyi la boo génnee da ngay jar déglul waaw Madou fan nga ñu bëgg a yóbbu. <laughs> foo <laughs> dañuy àndandoo dem seetaani ki nga xamante ne moom moo di Seynabou madame Touré moom tamit di jigéen di jàmbaar macha allah di yëngu ci li nga xamante ne moom moo di stylisme ñu àndandoo découvrir euh, li muy dóor ci waar wi lan la. secteur d'activité boo gis da fa fekk jàmbaar li koy firndeel moo di soxna Mariama mi ñu àndaloon muy yëngu ci njaayum kafe soxna Mariama moomile boole nañoo ak beneen soxna moom itam mu doon jàmbaar ci li muy liggéey nañ àndandoo découvrir andoo jigéenu Sénégal liggéey askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na fu góor taxaw jigéen taxaw na fa ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax dimbali seeni askan mën a dëgg la mën a dëgg la et eh oui vous l'aurez compris dugaat nañ nag ci beneen domaine le domaine de la mode ki ñu àndandoo nag découvrir andoo du kenn kuddu la seyna Seynabou Ndiaye di madame Touré moom nag ab styliste la li ñuy def rek dañuy ànd ak moom mu gën ñu expliquer lan mooy liggéeyam maa ngi tudd Seynabou Sao Ndiaye. madame Touré. Mhm. donc euh, je suis styliste. j'ai fait des études de langues étrangères appliquées au droit et à l'économie. à Paris mhm. à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Mhm. c'est par la suite en fait que j'ai dû rentrer après la troisième année. donc euh, après bi ma ñibbisee nag. am na benn petit temps de pause. boo xamante ni je me cherchais et tout mais xam naa ni que yàlla daf ma. tegaat daal ci yoonu stylisme bi comme lu ma hmm. bëgg la hmm. ci sama ci sama xol donc lu nga xamante ni tout le temps hmm. euh, sama entourage bu ñuy solu dañ may laaj seen avis wala dama teel a mën aussi ay euh, retouche à la ay affaires yooyu wala su ma amee sama benn yére ma xool nu ma ko customiser donc loolu yëpp daal tax na ba yàlla Euh, tegaat ma ci yoon bi. paradoxalement. Mmh. Wow. moi euh, mes journées sont plutôt longues mais dans le sens inverse c'est-à-dire je démarre un peu plus tard. Mmh. peut-être vers euh, vers dix heures. donc mmh. quand j'arrive à la boutique. je de rattraper les appels manqués d'organiser les commandes de la journée ak livraison yi tamit livraison yi ñu war a def ci journée bi su ma paree nag ma ma dem ci atelier bi euh, ak xool tailleur yi def dispatching Euh, couture yi ñu war a def ci jour bi mhm. tamit bu fekkente ne dafa am ay retouche voilà ñu def ko voilà dugal commande yu bees yi mhm. et cetera léegi nag euh, après nag ma dellu siwaat ci boutique bi pour mhm. def euh, accueil client yi maanaam rendez-vous yi nga xamante ni am naa ko ak sama ay clientes su ma wàccee nag ah su ma ñibbee nag ma toppatoo kër gi je fais le dîner voilà Euh, routine bi continuer après su ma amee tuuti quelque temps mm-hmm. ci guddi gi ma xool euh, fi may inspiré woo mm-hmm. commencé di xool sama ay modèles et cetera sur le net xool actualité bi aussi par rapport au stylisme mm-hmm. donc soo xoolee suma réseaux sociaux en général man page yi may gën a suivre sax ay page de mode la loolu mooy sama sama actualité parce que c'est vraiment lu nga xamante ni Euh, dama ko bëgg jigéen ñi entre ñun euh, nañuy jàppalante euh, ku nekk ci kaw xëcc sa morom ba mu egsi ci sa niveau et non le contraire ñu bàyyi aussi euh, peut-être ku nga xamante ni dafa am benn benn malheur wala lu ko metti mm-hmm. ñu koy fësal wala comme lu ñu xewal ñëpp di ko partager ou des trucs comme ça mm-hmm. ñu delloo ci sutura daal sutura lante suñu mm-hmm. biir euh, bokk partager te ku nekk tamit xam ni que euh, ku dugg sa àddina rek yàlla moo leen boole c'est vrai que j'ai eu la chance tamit ñawal ay ay figures wala ñu nga xamante ni aussi ce sont des femmes assez connues tey nag dama leen bëgg yóbbu ci benn ndaanaan bu nga xamante ni mhm. euh, dañu apprécier liggéeyam mhm. mais moom tamit dafa apprécier suñu liggéey mhm. doo ko xam naa fa la ñuy ñëw dem ni gisante ak moom tamit moom tam bu wax leen parce que parcours bu jàmbaare la am moom tamit macha allah kon nag dégg ngeen ko waxtaan ak moom waxtaan bu am solo waaye comme ni ma leen ko waxee woon bi pa jigéen tamit moo may boole waat ak jigéen ñu àndandoog moom mu présenté ñu beneen daanaan bu ñu egsee ci moom moom itam ñu xool parcours am naka la demee ngir ñu dégte leen ko yéen mbokku téléspectateurs yi. non mais stylisme nag euh, am na solo euh, dafay transformé nit bi ngay yegg si ni nga meloon ak bi ngay tëj ci plateau bi ni nga mel ute na ça c'est un métier. moo lay wan ni rek ku ci nekk ci liggéey bi ngay def rek mun nga ci def des choses exceptionnelles rawatina li nga xamante ne moom moo di stylisme parce que wax stylisme xam nga que da nga war euh, nga war a ne moom moo di ay style vestimentaire moo tax bi ñu àndandoo ki nga xamante ne moom moo di soxna Mariam di jaaykatu ataaye bi mu présenté ñu ko moom tamit ñu di ko sargal ndax wane woon nañ ko la dernière fois moom itam bu ñu egsee ci moom mu génnee ñu wan ñu domaine am ci bu mu nekk moo di wàllu stylisme leneen aussi particularité mu am mooy déjà il faut savoir que Sorbonne la nekkoon di jàng donc après sëy ah, indi bu bu mag ba mooy fi ma génnee eh, imagine nga voilà Sorbonne macha allah xam nga nga waroon ñëw nekk fi ñu lay xaar ci euh, nga nekk ci état bi yow nga ne non non animation laay def parce que moom laa bëgg Sorbonne yii Macron waa ok seen nekk ak suñu néeg nii lañ daan temps bi ñaan am grève euh, moom booy sànni après man ma soog sànni abaa ah xamoon nga Pinocchio est-ce que yow daawoon nga seetaan dessin animé Pinocchio mooy bi bakkan bi di dem ma yaakaar ni waa sorbonne maa la miin naa ko dégg maa la miin naa ko. billaahi billaahi. dama bañ a juum moo tax ma naan la miin naa ko. su la toppee damay déconcentré comme ni ko waxee rek Abba ni mu jógee Sorbonne moom tamit fa la jógee macha allah. Mhm. mais mu ñëw li nga xamante ne moom moo di passion am évolué wul ci ma côté communication bu mu jàngee tout ça mu ne moom lan la gëm moom moo di stylisme ak créativité donc nag mu dem di ko def mais bu mu ko defee mu xam ni que vraiment ce qu'elle veut bu mu demee ba créer markam ak benn xaritam mu ne elle va changer ce qu'elle va faire yokk li nga xamante ne moom la ñu duppee la phase de production parce que yow bu fekkee dañ la xamee ci benn marque maanaam identité style yére boobu rek ngay mën a yem te alors que moom dafa bëgg créer lu bare léegi ce qu'elle a day mel ni tey yow euh, Samira nga am sa marque bëgg créer boo ñëwee ci moom moom mu créer la ngeen waxtaan créer doo beneen modèle et ça lui permet de sortir la créativité qu'elle a dans sa tête donc leneen li ñu ci neexaat aussi comme ni ma ko waxee mooy jigéen ñi à plusieurs casquettes yemul rek ci loolu dafay liggéey en même temps ak li nga xamante ne moom moo di boroom këram ñu nekk ci même structure même liggéeyukaay ñoom ñaar ñu nekk ndox te d'habitude góor ak jëkkër ak jabar def li nga xamante ne moom moo di wareefu jigéen buy sëy nga xamante ne dina togg dina yàq toppatoo guddee tëdd comme d'habitude teel a xëyaat ñëw def li nga xamante ne moom moo di waaram ci liggéeyam donc moo taxoon ñu dem wane woon ko leneen du ñu ci gën a marqué aussi mooy le message qu'elle a lancé jigéen dafa war a jàppale jigéen mm-hmm. moo tax boo leen ko déglee vers la fin moom itam dinañu boole ak beneen soxna boo xamante ne dinañ ko gis waaye du ñàkk semaine prochaine ñu tegal leen suite effectivement y aura une suite donc aussi bu fekkee ni que xëy na moom ci étape bi mu yam na la ak keneen. Euh, daf may renvoyer un peu souvent dañuy wax ni que jigéen ñi souvent ñi ngi ci ay xeex wala ay jalousie wala des yoo xam ne c'est inutile euh, nga fekk ko ci liggéeyukaayam moom mu conseiller la guider la vers une autre personne qui veut dire que ngi jàppalante seen biir. effectivement loolu moo lay wan ne rek fi ne nii jamono ju ñu toll rek jigéen yëpp ñun ñoo war a xàccandoo dóorandoo ba pare former li nga xamante moom moo di sa blog surtout xamuñu dara parce que tout le temps da ngay gis jigéen mooy dem ci euh, beneen sëriñ ne ko yàqal ma sama moroomu jigéen na dof baa mu génn ci kër gi baa mu tàggali ko xelam te alors que loolu dañ ko war a dépasser jigéen moo ñu nara a booleeg jigéen te je pense que semaine prochaine dinañ gis ni que jigéen ñi ñoom itam ñi ngi former lii di chaîne en tout cas am na solo weer wi euh, seen weer la yaakaar naa ni ki la jël yóbbu la ci ki nga xam ne mooy styliste bi c'est une femme nga dem fekk styliste bi créé beneen yére pour beneen femme donc moo lay wan ni mm-hmm. weer wi seen weer la yow mii fa femme la tarkal la toog nii jàkkaarloog yow femme la moom itamit demoon seeti femme yaakaar naa ni ñun ñoo war a improviser ñu toog ci plateau ah. réalisateur wala ki organiser plateau warta improviser ñun ñoo naan lii dañ koy defee nii wala créer dara indi ko ah Pape Samba may ma wax rek may ma wax rek kii du dem seeti benn femme femme bu jàmbaar femme bu exceptionnelle ku extraordinaire kii dem seeti ko ñëw ba ñëw ba yegg si waa kaay kaay waa kaay waa kaay du ma wax barke yàlla du ma wax du ma wax mais euh, tarkal dinaa la bàyyi rek eh, nga waxal ma ki nga xam ni moo organisé plateau bi euh, ba defar ko ni mu mel ni indil ñu ay accessoires wax naa ni tabarkal plateau bi bu yànjee c'est grâce à elle Eh, muy muy jigéen ju mën góor. di mm-hmm. jàmbaar dëgg. Mm-hmm. tey bu ñu bëggee lii fan la ñuy dem ak kan la ñuy seet sama élément bi yembul nii. waaw nañ wax rek bu waxal rek dal temps bi di ñëw. ñu teg ko waaye yow bul nangu kenn di la xaar lool. waxal waxal. donc euh, suñu yaay Adja Wessel elle n'est plus à présenter à chaque fois euh, Weekend Stars nee naa leen mooy émission bi nga xamante ni da ngay def sa émission en même temps di lekk waaye waa backstage aussi dañuy lekk comme d'habitude donc ku ko bëgg rek da ngay daal di contacter suñu yaay Adja Wessel mu daal di lay décorer sa plateau non seulement waaye indi lay amuse bouche lépp loo bëgg rek incha allah da la koy defal moo xam thermos wala ay kaas yoo xamante ni macha allah wala pour naan ay jus ngeen ko am chez Adja ngi jëppal côté CBAO bi dem naan ak seeti ko ngeen ko découvrir venir numéro téléphone am nekk 77 723 32 32 donc Adja Vessel c'est une maman exceptionnelle da lay jaay neex deret di la waxtaanal Aba boo demee si place am non mais tu seras ébahi macha allah suñu yaay yàlla fal cat waaye aussi un big up à sama papa aussi ah ndax sama papa ñëw na euh, na mi ngi si moom fee daaw fa yàgg moom sama papa moom léegi moom <laughs> dootul yàgg moom barke yàlla sama papa moom day dem sax moom <laughs> xam naa su yeggee sax moom sama papa ngi Allemagne xam nga sama papa nag bu yeggee ci aéroport kii bi aéroport kii noonu burg bi eh. xaw ma kii burg waaye xaw ma lan burg bu yeggee lay woo sama yaay ne ko waa allo aja waa maa ñëwaat <laughs> ayca yàlla na jàmm moom yàgg. mooy en fait particularité euh, particularité bi nga xam ne moom moo nekk ci euh, li muy def. parce que souvent euh, jigéen ñi comme ni ko Adja ni ko madoo doon waxee tout ku ci nekk yaa ngi jéem a apporter une différence ci li ngay def. amuñu woon habitude di gis ci wàllu vaisselle par exemple moom fi mu ko yóbbu ci niveau. c'est-à-dire mm-hmm. boo demee ci place am.

important ça peut même inspirer à d'autres personnes ñu dugg ñoom aussi ci vaisselle topp ko et man je trouve que c'est une référence par rapport a ça ah am na solo euh, euh, ba pare nag xam naa sa papa dina ma baal mais euh, sama yaay buy lall wala buy defar mm. du yàkkamti day jël temps <laughs> ah, lay dox <laughs> lay dox yaayu abu abel <laughs> def tay baas def tagal ba pare nag merci beaucoup merci beaucoup ci nim ñu dimbale ci innovation ah plateau yi yenn saa yi mu def ay surprise tey plateau bi fii lañ ko war a def tey nii lañ war a defee tey war a tey yooyu en tout cas yaay booy sant dañ la gërëm nañ la bu baax a baax a baax nañu jël suñu beneen invité yi sax pareen saa ñu ñëw ñu jox leen beñe waaw billaahi jox leen jus non ñoom dañuy sawar weekend sax dañuy sawar ñi dañuy sawar commencer ak euh, suñu premier invité ci à la découverte de euh, pour voir l'artiste wala le jeune bi nga xam ne moom la ñuy découvrir tey mi ngi bokk ci benn label bu ñuy wax teel Euh, génnee en titre la vidéo est sortie defe naa mi ngi génn démb ci ngoon il s'appelle Kamal dama bëgg ñu seetaan sa vidéo et puis de revenir sur ce plateau dalal ko euh, waxtaanee un peu parcours bi. ayca ayca ayca euh, ñu am ki nga xam ni mooy Kamal yaa ma leen gënal kan lay waxal. Kamal ñu ngi lay alors ñu am mbégte bu rëy c'est la première fois ñu jàkkaarloo ak yow mais fan yëpp ñu ngi gis sa benn titre. Euh, bu génnoon euh, ci réseaux sociaux yi euh, suba teel moo ko produire. Mm-hmm. démb la clip bi disponible dañ jékki-jékki rek dégg voix bi kan mooy Kamal. ba maa ngi avant tout maa ngi nuyu waa plateau bi. di nuyu sunu yaay Mado ndaxte. dégg naa témoignage bi mu defoon ci ma vie bi ma génne woon en 2017 waaw vraiment maa ngi kontaan bu baax ci loolu di nuyu sama grand frère Abba ndax sama xaritu grand frère la muy Toumani Diatta. ah sama rakk la euh, rakkam a ngi ne moom laa àndal Moussa Sabadogo. ah Toumane sama rakk la voilà di nuyu sama sama fans bi nga xam ne moom yàgg naa ko yàgg naa ko seetaan vraiment film bi voilà mi ngi sol ay jiin wala nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk policier. waaw waaw waaw sol ku quoi sol kii jàppi góor pour jàpp la. la fa demee <laughs> voilà waaw ñun ñëpp voilà mais euh, ma leen nuyoo ma nuyu Sénégal nuyu àdduna yëpp ñi ñuy seetaan di kontaan bu baax ci teew fii nii parce que plateau la bu ñëpp bëgg a teew wax dëgg yàlla maa ngi kontaan bu baax ci teew. am na solo am na solo sooy wax booy nuyoo ci réew mi mën ngaa xool sa caméra mu ngi noonu nga nga nuyu leen. mais abaa nga baal ma ndax euh, tontuwuma euh, ci ci ci ci euh, ci ci ci ci question bi. parce que daf ni ma kan mooy Kamal. bon Kamal benn jeune talent la bu dëkk Tivaouane boo xam ni xamul lu dul way parce que bi may am 6 ans laa commencé way. Mhm. di way ay chœur d'ouverture way naa lu nekk. way naa ay chœur d'ouverture woy naa ay xasida woy naa ñëw fi en 2012 ci Baba Amdi mu boole ma ak Viviane ma koy aw maa aw album reetaan hmm. jooy naa jooy ba nurootuma nii Eh, maa ci aw maa aw sigilal sa yaay yow sigil sa baay yaakaar bu tas yàlla bu ñu dajee man maa aw album boobu vraiment di ci nuyuwaale au passage sama yaay Viviane di ko ñaanal yàlla guddal fanam àggale carrière am wax dëgg yàlla di nuyuwaale Baba Amdi mi ma boole woon ak moom en 2012 ma aw ko ba 2000 2016 après ci la euh, après ci la ci la ba léegi maa ngi ci baaba mais nekkatul ci baaba léegi après ma continuer ak baaba mu ma liggéey ak parce que miir naa mhm. waxal ak man lii moo gën man maa ko tey maa ko way waaw ak yow laa tipo xoolal bu baax a baax li ngay waxee man waaw yooyu maa def témoin yi ak Sidi Sidi sama Sidi la oh. rama nee na yaa ko daal <laughs> maa def clip bi maa def aussi maa def aussi boo defee témoin Abiba rek ah. bul fàtte ni maa def clip bi yaa def ci lu rëy ah. voilà waaw kookoy Kamal DJ Yves wax dëgg yàlla ñëw euh, jóge ci baaba am Amdi ak jàmm ak salaam nag ak xol bu sedd parce que def naa ci moom 9 ans wax dëgg yàlla mu def ci man lépp mu ngi noonu ma ñëw suba teel ci Matar Diop. Euh, Firish booy waxtaan ak nit euh, mu nekk à l'aise ci li muy wax c'est parce que xam na fi mu jaar. effectivement macha allah il son parcours. macha allah nga teeree ji suba teel génnee sa titre félicitations ci loolu. merci beaucoup peut-être voilà génnee euh, def naa sama première single defe naa euh, featuring la ak ak mooy gaynde njaay di ma ràccal yaaye boy ci digg mali malaami soom malaami soom njaay gaynde ñoo ko woyoon en 2017 ci ci kan bi boobu moo nekkoon sama premier single mhm. après ci laa def ma vie en 2017 génn ko comme premier single ci Baba Amdi ci mille mélodies après ci laa dem. voilà euh, avancer un peu rapidement génnee nga single bi euh, suba teel ñoo ko génnee comme ni ko waxee tout à euh, démb la disponible lan mooy surtout les projets est yaa ngi nekk di liggéey ci album et autre chose bëgg naa xam fan lañ la mën a fekk pour gën la découvrir d'après ce parcours on aimerait quand même di la fekk ci sa ay plateforme pour mën la di la bàyyi xel waaw à partir wax dëgg yàlla di di euh, maison de production boo xam ni wax dëgg yàlla mi ñu ngi jàppale ndaw yëpp Matar mi ngi jàppale ñëpp Matar mi ngi jàppale ñëpp maa ngi koy nuyu voilà Souley Awlaay mi ngi jàppale ñëpp <laughs> The moom sama sama The Best la The Best moom maa ngi lay nuyu bàyyi lool li déggal chéri lool li bàyyi mati maa ngi lay nuyu aw ma sa fay vraiment euh, Best lu ma la wax rek lu ma mënti wax rek maa ngi fàtte mooy loolu yaa moom émission bi jëlal bés. donc rendez-vous bientôt ci projet yi. waaw projet yi moom moom ñu ngi ci parce que déjà enregistré nañ lu toll ci ñaari album ba ñett ak ak waa ak waa Subatel waaw. parce que waay def nañ trois presque ay ay ay vingt quatre morceaux vingt sept. mais mais mais mais ñu Abba ñun man sama ñëw bi fii tey. dama ñëwoon pour seedeloo leen benn affaire parce que dafa am loo xamante si nii dama ko yàgg wax mooy ñun papa Youssou Ndour lañu am ak papa Baba Maal ak sunu ténor yooyu mais affaire yi warut a ci ñoom non non man d'accord ma te bis mi ngi tey maa ngi koy wax ci devant tous les sénégalais. Mhm. man Kamal incha allahu rabbi bépp titre bu war a dugg Sénégal artiste war ko fi indi mu war a jóge ci Afrique bi wala ci monde entier. buñ ma ci jàppalee ma indi ko. boo ma fekkee suba teel ni nga xam ne liggéey nañ lu mat liggéey liggéey liggéey mooy andi ay résultats ça ñu ngi koy ñaan yàlla di ci ñaan sénégalais yëpp ñu ñu ñu ci dëgg yàlla ñu ngi gërëm aussi Matar Diop suba teel bu baax a baax parce que mi ngi encadré ñu bëri également bon bu ñu andi laatee talent bu mel nii dañ ko ciy remercier et mm. puis am yeneen yoo xamante ni euh, dinañ ko xëy na découvrir ci suba teel n'est-ce pas Abba. ayca Youssou Ndour bu ko waxee eh, dañuy taxaw ci le 18 juin. ci dafa guñu publicité télé. déedéet mm. dafa guñu publicité rajo Youssou wax. Mm. te yaa ngi wàcc waaw oh, <laughs> boo xoolee ci plateforme yu nekk ci àddina bi yëpp. Euh, ubbi nañu déjà vente yi. Mm. Euh, d' ailleurs maa ngi gis sax ay sénégalais yu nekk à l' di taxaw buntu Bercy di magnifier le fait que ah. Youssou annoncé waat le retour de Bercy comme ni ko Abba waxee le 18 la mais je pense que c' est un événement euh, pour tout le Sénégal ah, mais Afrique ak àddina bi yëpp surtout les sénégalais de diaspora les africains c' est un rendez vous boo xam ne jox nañ leen ko pour le 18 Abba. xam événement bu mag balaa muy dem day def avant première eh. ma fi fekk rek ngeen assister. Eh. <laughs> da ngay teel a dem bi damay a da ban passeport ngay demee. <laughs> ah. kii bare nationalité te yëguñu. waaw ban lay demee xale <laughs> ok <laughs> ok nañu dem ci invité bi nga xam ni moom moo ci euh, topp Mafary Gueye ah. Euh, yow euh, ah. yow la love c'est le titre ñu déglu ko. Eh, eh, quelques minutes taw taw taw Mafary. non lii non lii kay ñëwal indi. fi nekk na ko ñëw takkee lii kay lu xew. xaaral rek kàll si. Ah. dem dañu bàyyi ci plateau bi ah, ko. wala da bëggoon mu dema di dem bi mën ngaa dem <laughs> dem demal ñu dem xooli kan si kan la ñuy xooli. xoolal si sa caméra gi nii.